naka la. lan la. yow yaay yaayu xale bi ma wax dëgg yàlla dégguma ko. kii dañ ma fekk foofu su si ñu woo ma ñu ne ma nga ñëw sa doom bi dafa gaañu. après boobu laa ñëw. fekk nii lii fii. loolu lañ ma wax. Mhm. mais instant kay moom instant moom. àndutuma ak sama sago mu wax dëgg yàlla parce que man lii moom seen tuuma ko woon nekkoon koo xam ne xale bi tamit la demoon surtout ci koo xam ne na daan jëfandikoo ay drogue yu mel noonu. ah loolu mu wax dëgg yàlla moom mosuma koo gis ci moom. Ah, mosuma ko tàggatoo dañoo tàggatoo rek xam nga problème bu ñëwee moom ñëw na dañoo tàggatoo rek. après moom mu jël ko góor ki man ma jël ko jigéen ki. problème bi la woon lan moo leen tàggee. problème la daal problème la moom waaw. mais ba ngay bàyyi si yóbbu ko ba ci sa xarit sa doom bu góor sa xelam daloon na. waaw sama xel moom daloon na moom daloon na. est-ce que ñëw di ko nemmeeku. waaw ñëwoon naa bu ma ñibbisee Casamance ñëwoon naa fii ci moom. waaw ñëwoon naa ci moom. fekk naa ko jàmm ak salaam moom wax dëgg yàlla. waaw. waxal rek moo tax tey bu def jëf bu ñaaw ji ah moom rek moom moom rek moo xam ak yàlla moo xam ak yàlla man moo instant ma mun ma koo gisé ci dara xaw ma wax dëgg yàlla xaw ma yàlla rek a xam te xamu woon ci leneen déedéet xaw ma ci leneen tamit xaw ma ci leneen ginnaaw ji ji am na lan la war a def aussi ngir mën a faj wala boo ko fii ci kër gi. la moom commencement moom baaxoon na.